ci gàttal El Hadj salaamaaleykum waaleykum asalaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak liggéeykat yi ci aéroport di ñii ñu duppee aiguilleur maanaam ci gàttal ñuy tegtal dawalkatu roplaan yi muy ci jaww ji di bu nuy teer yooyu aiguilleur ñoo fas yéene dem ci gréew àjjuma euh, ëllëg gi li ko waral di waxtaan yi seen digg kilifa yi mu antuwul kilifa yi asek non bu nu sañoon daal ñu gën xool seen aw nekkin ci liggéey bi seen ëllëg na ko noonu ak it yokk li mëpp euh, ña cay liggéey gréew bu agent yi ci direction générale impôt domaine ñoom nag fas nañ yéene fukki fan ak ñett euh, ci weeru octobre ba fukki fan ak juróom-ñetteel ba ñu dem ci grève lu ñu ñaawlu bokk na ca seen suuf sunu nangoo ci ñoom moo waral euh, ñaxtoog euh, mer gi sénégalais yu nu daal di denc ci sonq euh, ci Las Palmas ci Espagne dund ga métti fa lool ci ñoom nekk nu bon ba ñu mujj fax dugg ci xiifal bu nu sanoon kilifa yi jàppale leen ngir ñibbisi gi wàllu xibaar bokk na ci it ñàkkum kaaraange ci tali bi accident yu bari rawatina yoonu màggal gi mooy ci mujj lu ko jiitu it bakkan yuy rot saa su ne ci tali Sénégal ñu ci amee laagu mbootaay taxaw na ci nag ñooñee amee laagu ci accident yi fas yéene ci juróom-ñaari garage si Ndakaaru ñu amal ay ñaaxee ki sensibiliser sensibilisation ngir luy wàññi accident yi gën nañ caa joxoñ nag chauffeur si nga xamante ni duñ wàccoo benn yoon ak yoonal gi ci wàllu dawal di code de la ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Elimane ñu tàmbalee xibaar yi ak grève bu xamante ni ñii di aiguilleurs du ciel ci aéroport fas nañ ko yéene amal ëllëg ci àjjuma ji lay doon ñoom liggéeykat yi ne seen waxtaan ak kilifay ASEC na mujj la am ak gindiku la ñaaw lu bokk na ca lim bu doyee di ci seen liggéey mooy manque d'effectif waaye it euh, ñu gënal nekkinu ci liggéey bi ak it seen ëllëg di plan de carrière euh, dañ ciy déglu sax secrétaire général du syndicat boobee di aiguilleurs du ciel François Gomis ak Ibrahima Diamé président ba mu ñuy njëkk a dalal dafa fekk ñu déposé woon euh, préavis de grève léegi président ba mu ñu wooyu daf ñu wax ni dama bëgg ngeen euh, bañ a dem grève du moins ngeen dem négocier ak directeur général de la SECNA parce que directeur général de la SECNA daf ñu bañoon recevoir léegi nag ñun loolu tax ñu suspendre woon ñu dem nag négocier waaye ci négociation daal amuñu amuñu satisfaction amuñu lu amuñu lu ñu neex mm-hmm. moo tax nag ñu ne après dañuy dañuy dañuy référé dañuy xaar comité des ministres comité des ministres ak SECNA yi nag boobu ba léegi dégguñu leen waaw envoyé nañ leen lettre mais tontu wuñu donc donc nag kon am ñu satisfaction moo tax ñu ne ñun dañu reprendre grève bi waaw léegi vendredi bii nekk la ñu war dem grève vendredi bi 23 bi à partir de 8 heures. lan moo nekkati euh, fàttali ñu seen tawaat. tawet bi moom du leen du dul ñun li mu contrôleur dafa doy dafa doyut te xam nga ne liggéey contrôleur moom ko xam-xam ne liggéey bu bu doy waar liggéey bu métti la amee exigence te contrôleur vraiment seen lim euh, dafa doyut loolu moo tax ñu naan il faut ñu former yeneen contrôleur aérien pour alléger alléger liggéey bi comme liggéey bi moom dafa gën day gën a tar trafic bi dafay gën a yokk donc loolu moo loolu moo waral aussi ñu demander à ce que ñu yokkal ñu suñu suñu prime de licence ak suñu plan de carrière aussi parce que contrôleur aérien ñun aseg na am ñu plan de carrière da ngay dugg contrôleur aérien ba ba ngay retraité contrôleur aérien yi kon euh, seen ak ñaxtu waral grève bu ñu fas yéene sumb euh, ci euh, ajjuma ëllëg gi lay doon ñu àndoon ceek secrétaire général syndicat bi di François Gomis ñeneen ne ay liggéeykat yu yëglu mooy ñi yëngu ca direction générale impôt domaine liggéeykat yëpp fa ni ñoom weer octobre bi nu daal di dëgmal dinañ amal ab grève yooyu agent impôt domaine li ko waral di dañoo foqarti suuf sunu leen baaxee woon ñu ne faw ñu delloo leen ko dañu ci ànd ci fànn woowe ak kenn ci seen i naatango ñu dénk wàllu revendication yi di Mamadou Ndiaye Dione ñu teewlu kook ajaratu Racky Diagne. situation yi mooy dañoo amoon quatre hectares bu ñu joxoon ci Guédiawaye te boobu c'était en 2014 ñu joxoon ñu fa quatre hectares dañoo gis ne kat suñu benn collègue bu ñuy wax le directeur des domaines muy Mambo Diaw dafa dem pour nangu li nga xam ne wala foqati sax li nga xam ne mooy ak acquis foncier boobu noonu ñu amoon ci quatre hectares ñu gis ne ñun ginnaaw bi ñu jëlee lool ba séddale ko suñu imam ba bu nekk jox ñu notification te yooyu kenn ko ku moom mi Mambo Diaw directeur des domaines moom ci boppam le même Mambo Ndiaye moo tourné waat saisiraat commission boobu noonu pour nañu kat moom la mu signé woon di ay attribution jox ñu ko loolu nañu ko dindi pour jox ko ñeneen moo tax ñun ginnaaw bu ñu demee ba jéem a gisanteeg ñoom ñu jëm ñu woo ci waxtaan mais gis nañ ne kat ci woote bi ñuy wax noonu wooteel la rek pour dilatoire waaye jubluwuñ ci lenn ngir trouver une solution face à cette situation là saisiroon nañu ministère finance pour moom en tant que kilifa bi nga xam ne moo ñu boole boot ñun ñëpp mu mun ay saafara mais suñu demande boobu ba fii may wax ak yow nii bi kenn tontuwu ci bu weesoo question boobu tamit dafa am ay jàmbat ñu nga xam ne yàgg nañ ko jàmbat depuis deux mille dix-huit muy ay question plan de carrière il faut que agent impôt yi am plan de carrière ku ci nekk boo duggee tey ñu xam ne dans cinq ans fii nga war a egg bu fekkee yaa ngi def ay performance li ñu sax ci ay objectifs yaa ngi koy atteindre dans dix ans grade bii nga war a egg dans quinze ans fii nga war egg mu leer ñëpp moo tax ñun ñu jàpp ne ñoom li ñuy woo mooy ci xeex la ñuy woo li ñuy woo mooy ci confrontation la ñuy woo Mamadou Ndiaye Dione chargé revendication syndicat agent impôt et domaine Sénégal directeur des domaines Mame Boye Diao RFM jokko ak moom waaye la ko gënal mooy bañ a àddu ci moomeem mbir ñeen fukk ak ñaari doomu Sénégal ca Las Palmas ci centre bu ñu leen teg loxo boobaak léegi euh, condition nge métti lool waral sax ñu dugg ci xiifal bu nu sañoon ñu ne kilifa yu jàppale leen ngir ñibbisi gi ñaar ci ñoom ñu jot a rapatrié dàqee foofu ci sax ñoom euh, lañuy ñaaw lu ñu ne mooy ñàkk kersa ak soxoru ko police Espagne Amadou Sabax Ba ca centre Las Palmas nekk ca Espagne daanaka def nañ fa lu ëpp weer doomu Sénégal yi nee nañu seenu dundin foofu metti na lool tar na ba tax na ña ngi koy ñaawlu ma dogal mboj kenn ca ñoom am nañu fi def un mois

à faire gars yi dañoo dem de faim bi ñuy def da seen biir ko tàmm gars amatuñu laf en tout cas ñu ngi continuer di grève de la faim duñu ko utal nañu yemukaay parce que li ñu daj ba ak si fii xam nañu ko te boobee rapatriement sax kii di Ibrahima Ndiaye moom dellu si ci ay bés yi ñu génn ma ngay ñaawlu anam yi ñu ko indee fii ci réewum senegal mu jàpp ne ne loolee daal nitewul dara bi ñu indi Sénégal dañoo monote billaay monote lañu def lekk ñu naanuñu parce que ñu ngi jëlee ci centre bi ay ay cinq heures yoo ne cinq heures cinq heures ci ngoon bi ñu yóbbu mënatuñu laaj mënatuñu billaay jaaroon ci ci ci biir aéroport bi ñëpp dañoo xool man ko rëy nit billaay te defoo dara minimum lañu lañ am départ woon egg Sénégal noonu bi lañ fanaan joxuñu ñu dara dërëm joxuñu ko ñu ngi nii dërëm topp ñu aéroport bi fanaan bët set suñu mbokk yónnee ñu xaalis ñu doo ko dagg paas Serigne Fallou Gadiaga moom it bokk ci ñi ñu rapatrié la muy ñaawlu mooy doxalinu autorité espagnole yi ñu sampu lan moo tax ñu tànn ci doomu sénégalais yi ngir rapatrié leen te bàyyi fa yeneen nationalité yi lan leen man la tax ñu nangoo jël pays yëpp bàyyi Sénégal ku di Sénégalais ñu di la bedd di la jël sa passeport di la yóbbu faneen ñoom doomu sénégalais yooyu toll ci ñeent fukk ak ñaar nee nañu tey la ñu gën a dogu ci seen grève de la fin boobu ñuy amalee ci boobu le centre nekk ca Espagne ndax nee nañu la ñu génn cay koppar bari na lool ngir dem fële ci Espagne jërëjëf Amadou Sabax Ba tiis ca kafrin na euh, ku tolloon ci ñeent fukki ci at bu fa dënn bi faat euh, jéey ji nag mu ngi amee bik ca dëkk bi di Lewe euh, commune bu Boulel ñu fàttali ndem si yàlla si tolloon ci ñeent fukki at bana ginnaaw ñetti soxna juróom-ñetti tout tànk xibaar bi ñu taataane ko ci Oumar Ndiaye toogal ñu Kaffrine RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaane mbay mi ak tool yi dugub yoo xamante ni daanaka am na fa ay uh, picc yu koy yàq ca uh, Mbadiane ak Sam Yabal uh, diwaanu Louga béykat yi nag jaaxle lool bu sañoon daal kilifa it wut ca saafara dana ci ànd sax ak Serigne Dambake béykat la fa ca Njàmbur ñu teewlu ko ci jokkoom ak Amadou Sabax Ba. wax dëgg yàlla fii ci commune Mbadiane ak commune Sam Yabal ñetti at yi amul benn at boo xam ne ni nit ñi bay nañ dugub. góob ko ñu néew a néew a ñu ñoo ci ñoom ay tool yu néew la fi la ci picc yi di bàyyi te loolu mas mën na na ko wàññi ñaari tool wala ñett ba ren jii sax fi nekk di may wax ak yow nii fii ci commune Mbadiane ak commune Sam Yabal moom wax dëgg yàlla ku la wax ni dana fi góob ab ab ab dugub waxut waxut waxut lu xam lu mu lu mu xam wala kon lu néew lay doon loolu nag ba tax na may yëkkati sama kàddu di ko di ko jëmale ci autorités yi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla loolu uh, ci ñoom la aju muy ministre bi nga xam ne moo yor wa wàllu mbay mi mu gestuñu ndax su ma juumulee at yi yëpp ñu ngi koy jooy waaye mënuñu ci am benn saafara dëgg yàlla te lu metti la te waxtu wu ne nit ñi dañuy am yitte ci bay dugub ngir mën koo jëfandikoo waaye wax dëgg yàlla ñetti at yi yëpp euh, picc yi dañuy yàqal yàq bu méttee méttee fi may wax ak yow nii lekk nañu tool yi ba ñu ngi jëm actuellement nii ci dugg Daaru si tool yi nga xam ne ñoo ñoo féete ci penk bi tàmbali nañ ko tàmbali nañ ko lekk léegi nag ministre bi nga xam ne moo fi nekkoon moom benn effort jëm ko waaye ki nga xam ni nag moom la président tànnaat muy Aly Ngouille Ndiaye te ñu am ci moom yaakaar doomu baykat la te itam xam na bay te itam baykat la mu ngi bay ñu waxtaanee tali bi ak ñàkk kaaraange gi ci bakkan ci rot ak ñi ci amee laago saa su ne ngir yi accident association euh, ñooñu amee laago ci accident nag ñoo taxaw ngir sensibiliser ñaax askan wi ci yooyu accident chauffeur si rawatina waaye kilifa yi ci wàllu contrôle bi nu gis ne daal dafa yolom lool ak it euh, dawalkat yenn yi dul wàcc ak code de moo waral ci juróom-ñaari gaara si Ndakaaru fas nañ fa yéene amali ndaje ñu ngi ko tàmbalee démb ci àllax ba ji ca bu maraîcher ca Pikine président bu gogeeg mbootaay Ousmane Gueye ak Ndongo Ka. ñaax war leen coup d'accident nu mu méttee wax leen opération yeeg lenteur yi li si am yëpp dafa metti jéggi doyoo ba bu ñu ne da nga paralysie partielle wala ñu ne da nga paralysie totale je pense que seen mbokk ak ñi la wër sax dañuy dem bàyyi la parce que dañu dañ fi toog pendant di la jàppale wala di la taxaw ñoom tamit dañuy war a outil yi lu ñu am donc il nga am benn mentalité fort nga mën leen comprendre yow nga mën a jël say matuwaayu bopp association bi ñu ko taxawee la ñu ànd a xeex moo wàññi accident yi wàññi luy dee dafa bëri booy xool euh, màggal Touba fanweer ak ñett nit ñàkk seen bakkan si accident nga jóge foo ñu la juróom benn téeméeri nit blessé nañu si juróom benn téeméer nit ñooyu ñun si am 10 pour cent nga xam ne xëy na ñu ànd ak laa ko par accident démb mu am benn camion buy daw cent franc si VDN deux personnes ñàkk seen bakkan boo ko si doolee muy fanweer ak juróom muy li nga xam ne tey ji au niveau de l' assemblée nationale dañ lan moo ko indi lan moo ko waral ndax bakkan dafa ak dispositif yu bëri nga xam dañ ko war a jox gendarmerie nga xam ne ñoo yore contrôle contrôle war a sévère parce que day gis oto bi nga xam ne mu ngi lay romb nga xam ne kii war ta daw war immobiliser téye ko mooy tax tamit ñu gën a mën a wàññi liy faat moo tax ñun ñu ne liy cause accident yi la manque de formation da see xamadi da see am ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ñu waxtaanee wàllu cinéma ak euh, kër gi di Marodi Africa SA nam moon taxawalab série Rebelle euh, daal nañ ko mool ba noppi sax amoon yéene euh, démb ci hôtel ci Ndakaaru waxtaan ca ak taskatu xibaar yi muy wàllu projection privée waaye loolu préfet Ndakaaru daal di ko lànk ginnaaw bi nga xamante ni lànk geneen jiboon na ngir tere série boobu di Rebelle tukkee ci direction cinématographie bu Sénégal Mame Diarra Diombi ginnaaw bi ñu teree tournage ak teg ci télé yi série bii di Rebelle journaliste yi itam duñu ko mën seetaan loolu di ndogalu préfet bu ndakaaru mi gàntal projection bi ñu naroon a amal ngir journaliste yi réalisateuru série bi di cancandoum ne nangu na ndogal bi nga xam ne kilifa gi jël na ko euh, ñi nga xamante ñoom ñoo jiite hôtel bi dañu xamal ne ñu préfet bi ci ndigalu préfet bi euh, dootuñu mën a euh, def rencontre bi fii nii. muy wéy di diggee yeneen jotaay ngir leeral lépp lu ñu jàpp ne lëndëm na si bi la série. ndaje bi c'était pour que nu mën a waxtaan suñu biir ak journalistes yi. pour xamal leen li nekk si série bi parce que le contenu est jugé euh, problématique alors que dañu jàpp ne xëy na malentendu la parce que loolu taxuñu jóg nous sommes des enfants de la République puis di leen wax ne. que dinañ revenir vers vous très rapidement. si ab communiqué direction de la cinématographie di xamle ne série bii di Rebelle mënuñu ko bàyyi mu génn ndax mën na indi njeexital si réew mi rawatina si crise ba am ca Casamance. ñu waxtaanee gouvernement bu bees bi ak joxante leng yi fa euh, bokk na euh, ci ci euh, Yankhoba Diattara démb ginnaaw bi mu gàddoo leng yi ci ministre Makhtar Ba mi mu wut ci wàllu sport gi moom Yankhoba Diattara ci boppam tey jëlee bu 11 dina jël leng ya mu yoroon ci wàllu télécommunication. communication ak économie numérique jébbal ko ki ko yore bees léegi di maître Moussa Bokar Thiam 11h lay doon boobu passation de service ci seen ministère de économie numérique et télécommunication. RFM Sport. koor gi Cheikh Tidiane maa ngi lay fay Alaaji dañu koy daal di door rek euh, wàllu football ak ci lu jëm ci championnat bu Sénégal mi nga xam te ni jàppoon nañu bés ngir daal di door li nga xam te moo di jongante yi di Ligue 1 ak Ligue 2 le premier novembre le premier octobre lañ ko jàppoon yëfi nag dañ ko daal di dàq bu fukki fan ak juróom ba tey ci weeru octobre maanaam ñaari ay bés yi nga xamante ni daal danañ ko daal di kon bokk yokk ci bër bi nga xam te ñu ngi ko doon xibaar bi nga xam te ne bawoon ci ligue sénégalaise bu football professionnel bu loolu weesoo ñu dal di waxtaane équipe bu Sénégal moom mi nga xamante ne ma ngay waajal coupe du monde bi Qatar 2022 ci yoon googule sax suñu gaynde yooyu le danañu amal ñaari jongante xarito ca Orléans seen diggante ak ñi di waa Bolivie dañ ko amal ni ki samedi gi laata ñuy amalaat geneen jongante seen digg ak ñi nga xamante ne ñi di Iran le septembre ba tey euh, démb nag gannaaw waxtaan bi nga xam xamante ne daal ñi ko doon seq ak euh, lii di cellule euh, communication fédération sénégalaise bu football kii di ñu bees ñu ñëw ci équipe bi moom lan moo waral kon mbokk mu daal di ñëw si équipe Sénégal gis nañ nag ki nga xam te moo di Sadio Mané daal dina si ab rôle gu am importance ñu teg déglu ko moom Moussa Niakhaté mon choix en fait c'était mun naa ne def naa ko bu yàgg ñi may nekk ndool wala ñi may football ndool xam nañu lu ni mel. kon loolu jàpp naa ni du sax question man football ni ma ko xalaatee ak ni ma ko yëgee noonu laa koy doxalee maanaam di ko doxal ak ci sama bopp waaye it ak li nga xamee ni moo nekk sama xol kon boobu la décision mun nañ jàpp ni amal naa ko bu yàgg balaa lii di am ñun ñëpp xam nañu ban joueur la doon meilleur ci li nga xamee ni moom moo di ci Afrique waaye bokk na ci meilleur li nga xamee ni moom moo di football mondial kon joueur bu mel ni Sadio Mané bu ñëwee ba ci yow waxtaan seeg yow en tant que jeune footballeur am na nu mu lay def ñëw na ba ci man laaj ma ndaxam am naa yaakaar joué ci li nga xam ne moo di équipe nationale ndax bëgg naa bokk ci li nga xam ne moo di projet équipe nationale ma wax ko li nga xam ne moo nekk sama xel ak sama xel loolu nag jural ko ak mbégte ndax xam naa ni waxtaan na ci bu baax ak ki nga xam ne moom moo di entraîneur bi di Aliou Cissé kon dëgg-dëgg Sadio bi mu ñëwee ba la Sénégal am loolu mun naa ni sax ma nekk fii di ko tagg ñun ñëpp xam nañu Sadio Mané ban façon nit la waaye mën naa jàpp ni moom ak bu ni mel lu ma marqué lool la ci sama vie de di jaajëfal Pape Malick Diaw mi nga xam ne moom moo tekki yooyu la kàddu yu Moussa Niakhate keneen ku bees mu di Mori Diaw moom nag ab góol la nekk ci Clermont euh, di Ligue bu France moom itam nee na nag euh, yàgg naa gis boppam ci Sénégal ndax Sénégal moom benn bu du ñaari yoon da leen doon supporté ba tax na ba ñu ko woowee ngir mu daal di ñëw équipe nationale bu Sénégal hésité ci benn yoon ñu tey ci micro fédération sénégalaise bu football. je suis formé au, au Paris ca Paris Saint-Germain lañ ma daal di formé en tant que gardien de but gannaaw loolu ma daal di dem fi nga xamee ni moo di Portugal foofee toog naa fa ab diir yoo xamee ni aw ma woon club li ko waral moo di dama daggoon sama contrat ak club ba ma amoon ca Portugal gannaaw loolu juróom benn weer amal naa ko it foofee ca Bulgarie. nga xamee ni ci njeexital ba daanaka ni mu fa demee it baaxul woon ndax juboo ma woon benn yoon ak dirigeant yi loolu la waral ma dagg itam sama contrat foofule ba ma ca jógee ca laa daal di ci fi nga xamee ni moom di Suisse foofee ca quatrième division laa daal tàmbali ak juróom benn weer yoo xamee ni joué ko balaa ki nga xamee ni moom di club boobu di Lausanne Sport daal may gis repéré ma ma am ci ñoom ñetti at yu dëgër yoo xamee ni fa laa daal di imposé moo di ca Clermont ca France wàllum équipe nationale maa di des ci li nga xam ne moom moo di sélection bi waaye nag faaw ma respecté li nga xam ne moom moo di concurrence bi daal di nekk ci équipe bi li gën a am solo moo di ñun ñëpp ñu booloo di indil li nga xam ne moom moo di Sénégal moom la ñu bëgg ci wàllum résultat ba tey ci sélection dama ñëw ngir xaj-xajal jéem a am place ci li nga xam ne moom moo di équipe bi indi itam expérience mu néew mu bëri bi nga xam ni amal naa ko sama souvenir bi gën a mag nag ci équipe nationale ci atum 2002 la woon coupe du monde ak kan bii ñu mujj waaye ci atum 2002 daanaka ab gone laa woon loolu la waral ci kan bi daanaka ci laa gën a nekk supporter bu équipe bi mbégte laay am ci teew ci li nga xamee ni moom moo di groupe bi indil équipe nationale wala book indil ñu ñun ñii di sénégalais yi li nga xamee ni moom moo di coupe d'Afrique des nations. en euh, nous le peuple sénégalais. nag euh, Sénégal ña nga ca Orléans ca France ngir waajal amal ñaari jongante xarito bu njëkk ni ki samedi gi seen digg ak teg Bolivie ba ca des nag danañ ko daal di amal mardi euh, ba tey seen digg ak ñi di waa Iran. bu loolu weesoo ñu daal di dellu ci passation de service bi nga xam te ñu ko doon amal démb ci ministère des sports diggante Matar Ba ma fa nekkoon ak fa daal di wutu moo di Yankhoba Diattara Yankhoba Diattara nag ba mu yegsee yëkkati na ay kàddu la mu bëgg nag moo di bépp fédération gis boppam ci liggéey bi nga xam te ne moom mu ngi koy def ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. benn changement du ci am noonu lañ koy àndee encore comme nañ ko doon defee ensemble en équipe de manière solidaire comme ni ko président li nga xam ni mooy fédération yi ñoom ñëpp na seen xel daal na nga doon doxale rek donc dinañ nekk ministre sport yëpp dinañ nekk également supporter bu discipline yëpp ñu nañ ko àndandoo ensemble de manière solidaire yàlla suturaal nañu wax naa ko sànq nous sommes peuple boo xam ne dañu bëgg sport surtout jeunesse bi bëgg nañ sport te koy pratiquer mais également xam naa sa ndëgër laay ndax yàlla nag suturaal dama pendant vingt deux mois nekk naa conseil des ministres ak yow yenn saa yi sax dama la doon yërëm ndax mën naa ne pression bi nga xam ni le premier supporter des Lions le premier supporter le premier sportif sénégalais muy président de la République doon na ko teg sa kaw pour ndam li ñëw. moo tax le peuple sénégalais dañoo war a xam ni dañu am chance am président la boo xam ni dafa attentif dafa ambitieux dafa bëgg réew mi dafa bëgg lu baax te loolu soo ko amee ci njiit am ko ci sa kilifa sa xel dafa war a daal kon ñun xam nañu fi nga xam ni fi lañ ñëw mais également xam nañ ci ne suñu a kon daal li président li président di wax slogan bi mu doon wax muy ñu continuer di manko di joxante loxo dem jëli ndam li yàlla na ko yàlla dogal. ma nga noonu kon boog Alaaji Assane fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. Yankhoba euh, ba ko di ko ñaanal di ko ñaanal daal yoonu jàmm waaw di ko ñaanal yoonu jàmm daal mu ngoog waa kay euh, ci bu coupe bi ko <laughs> <laughs> <laughs> rajo askan wi. ñu ànd ak euh, chronique culture beeg Anna Kocha maa ngi leen di nuyu mbokk yi xibaar yi aada yi li ci gën a fës tey ji ci suba coow li ñeel série télévisée bi di euh, Rebelle épisode bu njëkk bi ñu waroon ko euh, diffuser ni ki euh, démb alarba ñu mujjee ko fomb réalisateur bi ak société de production bi di maro di bëggoon itam amal projection de presse privée ci apo hôtel bis boobu ñu tere leen ko préfet bu Dakar moo fa jaar réalisateur bi di Thian Thiandoum leen leeral ci micro Mame Diarra Diompi. ndaje bi c'était pour que nu mën a waxtaan suñu biir ak journalistes yi pour xamal leen li nekk ci série bi parce que le contenu est jugé euh, problématique alors que dañu jàpp ne xëy na malentendu la parce que loolu taxuñu jóg nous sommes des enfants de la République puis di leen wax ne que dinañ revenir direction de la cinématographie moom itam mu ngi indi ay leeral jaarale ko ci ab bataaxal bu ñu sukkandikoo ci euh, DCI euh, dossier demande d'autorisation de tournage bi nga xamante ne ñoom déposé nañ ko euh, dafa mattu te sax nag li nga xamante ne moom mooy sujet principal u série boobule di crise casamançaise bi dafa nekk loo xam ne dafa xaw a sensible jamono yi Fama John ngir yeneen i leeral. waral. direction de la cinématographie mi ngi ñaawlu li muy wax ñàkkum collaboration dem sax ba mel ni waa yi dañu leen di dëkku. Marodi dafa wëy di defal ay tournage te boobe amul sax autorisation boole ci daal di diffuser ab bande annonce bi waxee ni série bi dafa war a génn buñ sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ni direction de la cinématographie moo ko def maison de production bi di Marodi daf leen a bindoon mail 17 mars 2022 doon sàkku ab autorisation ngir ñu mën a tourner série bi di Rebelle DCI nag nee na li waa Marodi def àndul ak réglementation bi looloo tax nag mu yónnee ab kayit ñi ay tournage bi ba noppi nag génn ci internet bi band annonce bi loole nag ñu ngi ko teg ci disposition loi numéro 2002 18 bu 15 avril 2002 di wax ci organisation activité de production yi. alxames ji nag la ñuy amal cérémonie passation de service ci ministère de la culture Abdoulaye Diop fas yéene jox lenge yi kii di Aliou mi nga xam ne moom la ñu tàbb bees euh, ci boppu département bi cérémonie bi daañu ko amal bu ñeenti waxtu ci ngoon euh, jotee yi fi lu ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllë incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. Ndayan Lagos International NCA Assurance TDST Touba Darou Salam Karo Okayar ndox mi neex te sell Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumu Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Serigne Saliou Seck dalee nag jàmm nataalub maire bu ndakaaru daanaka fépp ci yéene kaay yu nu xëyandool l'observateur ne la ko waral moo di démb lan ko doon àtte journal Futur Média bi ne Barthélémy Diaz cour d'appel bu Dakar joxe na dogalam ci liñ ko tuddoon ci faatu ko Ndiaga Diouf ca buntu maire bu Mermoz Sacré-Cœur juge bi dafa dëggal dogal bi nu jëloon ca première instance mu di ñaari ati kaso yu muy tëdd ak juróom-benn weer te loolee maire bu Dakar cassation lan jëm ngir kase bilép verdict las ne verdict ba kay démb la daanu maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ñaari mandaam yi mu amee muy maire bu Dakar bi muy jiite ak député ba mu doon ci assemblée nationale yépp a nekk ci danger journal L'Info ne bukki ba màttoon Khalifa Babacar Sall moo koy yootu bés bi la journée dëgg la gannaaw Khalifa Babacar Sall Barthélémy Diaz itam condamné nan ko cour d'appel bu Dakar dëggal na ñaari ati ak juróom vox populi mu dëggal fa ay kàddoom ne muy maire bu ndakaaru di député ba mu doon ci assemblée nationale dara la ca dul bàyyi lépp lay boole doxal si du quotidien lu ci mën di am daal mbirum Ndiaga Diouf ma tabbalaat na maire bu ndakaaru di Barthélémy Diaz ci njàqare professeur Ndiak Fall ci biir yéene bi ne fii ak atte bi jeexagul Barthélémy Diaz mën naa woy di nekk député ci lu dul am sikki sàkka Daouda Mine ba tey ci biir journal bi ne article la nekk le témoin ne ay mandaam tamit sursis gannaaw bi cour d'appel bu Dakar dëggalee daan bu njëkk ba lii quotidien daan boobee moo tax ba fi mu toll Barthélémy Dias bang yamu toog yépp a yàng tribune yéen kaay li leen leer te wóor moo di bii àtte bu wóyee maire bu Dakar di Barthélémy Dias ci ñàkk ñaari mandaam yépp la jëm muy bu maire Dakar di député ba mu doon ca assemblée nationale assemblée nationale moo di pencum ndawi réew mi njiit la di Amadou Mame Diop moo nekk ci xët u njëkk journal yu président assemblée nationale dugg see lànk la ñuy def ne duñu jug taxaw ñu taxaw ñun ci communication régime bi fi nekk enquête yéene kaay moo ci def enquête ba xëy becc ko ci aw journal bi ne communication présidentielle ak bu nguur gi Macky raxas ko ba mu set la def fi mu ci journaliste yi la wékk yaakaaram dal di fay tekk Yoro ak Abdou Karim Fofana Abdoulaye Cissé bu Futur Média di leeral waa enquête ñetti ponk yi tax communication a l'observateur Maria Diédhiou ak Aïcha Goudiaby bu l'observateur ñoo ko seq di ko laaj Masnour ne leen xelam xalaatul mu def ci bii film lu ëpp ñaari téeméeri million ci xaalisu CFA ba noppi di seetaan ñu koy censuré Masnour ne film bi gaañ dañ koy mën a bàyyi mu teg ko ci réew mi lu ko mooy mu jël ko yóbbu ko bitim réew réew mi ministre yi fi fal yees ñoo ngi wéy di jokkalantey lenge démb bëri nañu ko def Matar Ba ak Yankoba Jatara moom daanaka dañ doon tàggat yaram bu nekk ci réew mi mu bay ci waaram tàggat yaram ba tey ak sunu gaynde yi record yéene kaay ne Sénégal ak Bolivie ci seen laale bi Sadio Mané ak Krépin Diatta ñoom la Aliou Cissé mi leen di tàggat nara a teg ci couloir yi yéene kaay groupe Futurs bi yokk ca ne ci 4 itam lan jëm ci bii jongante ñu jëm ñun ci libération yéene kaay mi xëy di waxaat ci faatuk Aminata Touré ñu gënoon koo xam ci méta journal bi ne mbir ma ca Kolda la xewe woon journal bi ne ki nu ne moo faat ndaw si yoon teg na ko loxo ba defeere na ko Ndayan Lagos International NCA assurance TDST Touba Darou Salam Karo Okayar ndox mi neex te sel Gam Brandy et la Beauty Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Serigne Saliou Seck bu sañoon nag gis ci yéenekaay yi fu nu wàññee njëg yi ceeb bi rawatina ñu koy jaajëfal naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar ak meruk euh, liggéeykat yi ci aéroport di aiguilleurs du seel yi ñoom nag àjjuma ëllëg gi sax fas nañ yéene dugg cib grève ginnaaw waxtaan yi seen digg ak kilifa yi ASECNA jurul lu bari bokk na ca lanu bëgg luy gënal seenaw nekkin ci liggéey bi euh, lu leen di jox ëllëg gu waaye euh, lu jëm ci wàllu yokk limëpp ña cay liggéeye muy effectif bi grève beneen bu ñeneen fas yéene sumb waaye bi yoon weeru octobre fukki fan ak ñett ba fukki fan ak juróom-ñett di agent impôt et domaine yu Sénégal ginnaaw bi ñu nangoo ñu ne suuf su leen baaxee woon ñu joxoñ ci directeur de domaines Euh, bu nu sañoon daal suuf soosee teguwaat ci seen i yoxo te it ñu gënal anam yenuy liggéey wàllu xibaar bokk na ci it ñeent fukk ñaari doomu Sénégal yu ne ci xat-xat ca centre bu ne ca Las Palmas ci Espagne ñu tee leen fa euh, ci wàllug euh, nekkin ni bon na bonaay gu waral ñu dugg ci xiifal ñoom ñooñee ñaar ñu di jotoon dal di delloo si Sénégal sax ñoom ñu ngay ñaawlu ñu ne lii di mbonuk alkaati yëfa te Espagne bu nu sañoon daal kilifa yi jàppale leen ci fànn woowee sax dinañ ko waxtaane immigration irrégulière bi waaye nekkin wi bitim réew rawatina doomu Sénégal yi incha allah ci kanam tuuti penco gi RFM dinañ ci ànd ak euh, njiital ONG Horizon Sans Frontières Boubacar Seye xibaar yi bokkoon na ci accident yu bari yi rek saa su ne ñu koy jàmbat bakkan yi ak ñi ci amee laago moo waral ñi ma a accidenté ba mu daal di leen di ba ak i laago taxaw yëglu ndax xam nañu mbonaay gi ci ak it lu muy dugal njaboot yi ci wàlluy njaaxleeg sëngéem waral ñooñee di personne accidentée vivant avec un handicap daal di tàmbali ab campagne ngir ñaaxee ci garage yi juróom-ñaari garage yi Ndakaaru lañ ko fas yéene tàmbale démb ña nga woon ci Beaux Maraîchers bu Pikine Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj ci micro bi digital gi Yacine Pouy ñu leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu ci am